taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mii tafa wér ga newoon ca Mustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Mustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam aminatoo jur Mustapha amintaloo jur mii tafa kon mee tafa may mii tafa li tax mu sangaay kemam madina géeg taayif kële tuubaa giléeg taayif kile meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba xam taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mii tafa wér ga newoon ca Mustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Mustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar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 fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram di weeru tamxarit yemoo ak le 19 septembre muy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ñibbisig Serigne Touba fii ci Touba. sëriñ Modou Moustapha taxawu bis boobu tey ji koy fàttaliku tax na bi ñu xëyee ñu ñëw fii ci jumaa loo xam dina fi tukkee jëm ci ziyaar yi ak tamit lu jëm nga xam ne mooy am biir jumaa ji suñ ci jógee danañ ñëwaat ànd ak yéen xatmu loo xam ne tukkee na fii ci biir jumaa ji jëm ci màggal gi nga xam ne ci lañ fàttaliku ñibbisig sëriñ bi fii ci Touba tey ji xam ne moo yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Muharram di weeru Tamxarit yemoo ak le 19 septembre 2019 moom ni defoon bis aw jiwoom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 di ko ñaanal di ñaanal Serigne Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot Cheikh Mouhamadul Moustapha ak njaboot gi yëpp ni nga ko waxee bis bii dafay bés bu rëy ci lislaam rawat na ci yoonu morit ndax ci la Cheikhul Xadim radiallahu anhu dellu siwaat ci barab bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci kaw suuf gannaaw bu mu soobee boroomam mu woowaat ko ca moom Euh, loolu nag di lu am solo Cheikh Mouhamadul Moustapha mi magoon ci njaboot gi ca waxtu woowa euh, ci gannaaw ay dénkaaneem yamu ko dénk moom moo digle bis bii digle ko it digle wiin wu am solo woo xam ne moo dëppoo ak ni sëriñ bi daan defale boppam bis xam nga ne sëriñ bi ci gàmmo day wax ne taxsimuhu bi sunnati nañ koy fonk di ko wormaal waaye lépp luñ ciy def nay dëppoo ak sunna Cheikh Mouhamadul Moustapha <clears throat> fàttali loolee ci bis bi soññee ko bu baax a baax daan digle saabu bis bi ak see ku ko mën na nga fanaan si Touba waaye daan tànn ay mukallaf yu man alquran ay kaang andi leen fii ci biir jumaa ji Eh, tasaare leen mu tàmbalee ca biir barab ba ci mi'rab bi ba ci koñ yi ca waxtu woowa na jumaa ji demee woon ñaar fukk ak juróom-ñett kenn ku nekk wàccee ab kaamil eh, xasida yi tamit kasaalika ñooy ñaari sàlli sëriñ bi eh, lu mel ne jees bu mu muqaddimaat ak miimiya moom it am ñu koy jàng bu bu tànnee loolu ba noppi nag ne mbooloo mi nag tey jiidu bisub def loxoy neen lu waay mën na ko def ku mën a jàng alquran keneen jàng ko ku mën a jàng xasida ku mën a yor kurusam di tudd yàlla sax na ko def waaye ku nekk rek na nekk ci lu ko mat loolu nag moom la kilifa yi sàkku ñu dundalaat ko noonee nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon tax bi mu jubee ñu waajal ko tànn ñaar fukki kaang ak juróom ñett yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ràññee seeni taxawaay yóbbu leen noonu ca biir jum ci biir euh, jumaa ji euh, ci jéem a dundalaat sunna sa nag ko Cheikh Mahamadul Moustapha daan defe kenn ku ci nekk tàmbali ab kaamil am na ci ñoo xam ne sax fii may wax ak yow àggal nañu ndax am nañu teel a agsi bi nga xam ne biñ suba rek dañoo daal di daal seenub kaamil euh, àggal nañu am na ci it ñoo xaw a naaje ndax taw beek yoon wu xaw a jafe wi waaye ñëpp ña nga ca te incha allahu jàpp nañ ne bala ñoo nodd tisbaar ñëpp danañ àggal bu ñu julee tisbaar ba noppi ndawi kilifa yi ñëw ñu dajee def xatmu bi dénkaane kàddu yi ñuy dénkaane. waaw ah eh, nit soo koy defal tey dàkk ak bëggam da nga koy dàkk ci lam gënoon a bëgg sëriñ bi alquran la gënoon a bëgg ndax alquran moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne fadlu kalaamillahi ala daa'iril kalaam ka fadlillahi ala xalqihi ni suñ borom tabaaraka wa taala bind mbindeef yi gën a mbindeef yi noonu la alquran di waxam ji gën wax yépp eh, sëriñ bi am na tolluwaay ci ak dundam boo xam ne dafay wax ne lépp lu dul alquran suñu borom daf ko jënd ci moom rékki ci moom loola ba mu set ba bàyyi kook alquran kese eh, mu liggéeyal borom ci alquran liggéey boo xam ne taarix nett léeguñu keneen ku ko def digle ci it yiw yu baree baree bari njaboot gi xam loole dundal ko bu baax a baax ba tax lu dee si defal Serigne Touba alquran jiitu ca loolu moom rek moom la xel nangu loolu it la kilifa yi xam lii nag day ci jumaa ji di ab tàmbali waaye tey jii soo demee ci biir dëkk bi ci njabooti Cheikh Mouhamadul Moustapha yi moo xam doom yi moo xam set yi ba ci taalibe yu mag yi fu fi waay nekk rek. alxuraan jàng fa am na ñoo xam ne ña ngi ci seen biiri kër di wàcce ay kaamil ndax xam nañ ne Sëñ Tuubaa ñuy defal te lii mooy lu lu ko gënal ci lees koy defal. taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii tafa wir ga newoon ca Moustapha nañ ko it la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn mosu ko gis mu bangam.